lamb bien avant coronavirus di dugg ci àddina bi lamb corona la bu yàgg. lamb corona la avant corona di ko laal corona dafa ñëw kor ko dogali ko. boo leen seetloo làmb 2010 2011 2012 ak làmb 2020 19 18 20 am na différence. bu leen fàttali ni calendrier yi dafa doon surchargé ba gars yi bi les promoteurs di jël les mercredis et les vendredis te coono lu muy bari yëpp làmb mooy sport ak culture bi nga xam ne tey. bis bu calendrier calendrier bi chargé mooy dëkk bi dafay stable il faut nit ñi di seetlu. nañu seetlu année yi passé di calendrier bi chargé ba nga xam ne combat dëkk bi mel ni parce que c'est sport de chez nous amuñu lenn lu mën a impressionné mooy sport bi nga xam ne aada da ci nekk d'abord aada da ci nekk cosaan da ci nekk. moo tax bu ma déggee parfois gars yi di wax naan culture culture xanaa xamoo làmb moo tënk ministre de la jeunesse parce que d'abord il faut être jeune. def làmb jeunesse mooy def sport. deuxièmement nga ne culture làmb am na ñoo xam ne tey bëri bi intéressé wu ñëw seetaan Balla Gaye bu baaxu wala Bombardier bu baaxu après ñibbi c'est la culture ba pare nag nga ne sport. ak bagage yi am na ñoo xam ne loolu moo la intéressé làmb éducation. yooyu nag bu tënkoo ci làmb bu tënkoo ci làmb tey ñu jékki-jékki sentir ni ya amoon ak léegi am différence tey bien avant que corona di dugg ci dëkk bi làmb am na ay jafe-jafe te jafe-jafe boobu nag am na ci loo xam dañ koy reprocher suñu bopp mais am na ñoo xam dañ koy reprocher ñu jiite ni ñu koy reprocher suñu bopp mooy parfois da ngay dëkk nit micro muy lex lexel war a wax dëgg parce dëgg ku lool xaq wala waxaana mu ran dëgg yàlla moo ko moom nga dégg mbër nga jox ko micro làmb ak jafe-jafe yi mu am ko micro muy lex-lexal di wër ndombak di wii rek di xam nga parce que am na xaritu ministre rek wala xaritu parti c'est quoi sa problème ñun li ñuy dundee suñ sutura bi képp ku la mënul yoral sa kër mënu laa yor ba ma di def wax léegi ni mbër sa ton homme noobu lu mbër mënoo ko xam tant que ñëwoo dëkk ak moom wala nga jekki ko suñu xaalis dafa leew parce que suñu xaalis balaa ñoo dundal suñu njaboot di fayal suñu école donc il faut suñu benn bën suñu ngam tourné day caaxaan loolu il faut nga nekk noobu dëgg suñu xaalis dafa leew moo tax incha allah bépp doomu mbër day réussir parce que suñu xaalis pour nga am ko dem nee naa la dangay xëy suba bëre ba pare xëy suba di sëlmu sa maram di la di capp morso di la fompal ndax sa loxo du mën a laal doo mën a sàkkami xaalis boobu lan moo ko gën a lew kon ça veut dire que tey ñu on est des nobles ñu nous les lutteurs waay ay compte Singapour ñun xaalis bi nga xam ne dañ koy jëlee ci làmb bu nekkoon ci ñun rek la yem immeuble boo compté ci Sénégal deuxième ba immeuble mbër lay doon parce que xaalis bi ñuy gañee ci làmb dañ koy partagé ak suñu ay mbokk. population sénégalaise. mbër moo gën a accessible ci star Sénégal mbër. dama ne moo gën a accessible parce que on est trop proche ak suñu dëkkandoo yi buntu mbër dañu dañu jege suñu population tey bu ñu ubbee tey buntu kër mbër boo fëgg ñu ubbil la kon boog am na loo xam ne tey euh, li ñu ñëwee fii tey di ko fi yaatal tey parce que on a un problème problème bi lan la mooy la pandémie le coronavirus dafa dugg ci àddina bi nasaxal trafic yi naxa nasaxal liggéeyu àddina bi yëpp ñun nag accepté nañ ko en tan que ay citoyen gars ñu dégloo waay ñu dégloo waay ñu dégloo waay accepté nañ ko en tant que ay citoyen accepté nañ ko en tant que des leaders leaders des leaders d'opinion accepté nañ ko les mesures barrières yi depuis bi corona bi amee ba léegi dañ cee jàpp jàpp ñu ko pour pour pour pour xalaat ni am nañ war nañ am retour dañ ko dañ ci jàpp parce que Macky le président Macky Sall moo def appellation. woo citoyen woo secteur privé bi woo ñëpp ne leen dimbali leen ma ci feebar bi ku ci nekk sa déem sa dakaar loo am defal ñu yëg appel boobu parce que ñun nag lépp loolu lu ñu am nañ ko sant population Sénégal. parce que nag lu ñu leen jox delloo nañ ko ci ñun bu ñu amee tàkkusaan fii da ngay romb ci mbedd mi nii doo gis nit ku dox ñun lu ñu am. lu ñu am fii lañ ko delloo ci dëkk bi bi ñu yëgee loolu nag la ñu suñu biir comme association li muy def rek dajale li ñu am yóbbu ko mu rafet lool mais defuñu ko pour xaar dara ci état bi defuñu ko dañ ko def parce que ay citoyen lañ comme ñëpp mais nag pandémie bi dafa amaat beneen tournure mooy deuxième vague ñu gis ni Euh, décret bi nga xam ne tey ministre de l'intérieur dafa indi muy suspendre toute activité culturelle et sportive dafay dis ñun dafa metti am na mbër yoo xam bi ñu jëlee avance mbëru mbëru mbëru mbëru mbëru mbabat yi ñun on parle des de lutteurs en acte mu nii ñoom mbëru mbabat yi ñu ne ci àll bi xam ne boo nekkee ci àll bi tey di def ay tournois am na suñu nekk ci mbapat yoo xam ñoo ëpp xaalis sax mbër ñi. mois de mars mbër yoo xam ne jël nañu avance depuis daaw jusqu'à présent tey xamuñu fu ñu jëm bombardier bi nee na laal la comp balla laal la comp kañ loolu kañ lay rees jeex na bu yàgg ñun nag li ñu fi dajale tey mooy dañu bëgg rek dañu gis ni sentir nañu Covid 19 bi bu leen fàttali ne état bi 1000 milliards moo dugg 1000 milliards gaay nañu waxante dëgg. dégagé comme budget ben 1000 milliards de cent francs. ça va on n'est pas des Congolais. on n'est pas des Zaïrois. on n'est pas des Libériens. on est Sénégalais. non loolu moom. des xam ne nous les lutteurs on est parti de rien du tout. billaay wallaay kan. tey fii kenn kenn juddu fi sa papa fekk sa baam ay millions. Gris Bordeaux am na yaa vingt ans ou bien yaa trente ans bu asamaan si xiinee day tiit ay bool lay teg de gos à droite ndax ndax ndox mu war a wàcc ci kawam kooku tey ak ñeneen ak ñeneen ak ñëpp fii tey ku fi expliqué wul sa jaar-jaar nga ne c'est pas possible on est des am na ay jamono yoo xam ne yaa trente ans de cela bu asamaan si xiinee du ma nelaw ak samay moroom jusqu'à présent am na ñu koy dund dugg ci làmb uniquement pour redresser sa famille dugg ci làmb pour dimbali sa waajur mbër yi ku ci engagé wu mais bu leen mais takk ngemb nekk ci diggu géew soixante mille spectateurs kurpañ yi di mel ni mbàccum gerte mais dafa jomb saa yombul problème yooyu nag six mois de préparation gars yi yaakaar ne ñu ngi at nag li ci biir ngor lañu ñu sut dañu ñu ngi sant yàlla mais nag am na loo xam ne tey li ñu fi teew indi fi tey mooy dañu gis ni état bi saa yi gars nañu wax dëgg 1000 milliards 200 francs. milliards la état bi téye ci loxo di ko séddale. di ñu sentir ni mbir mi am na ci discrimination am na ci parce que tamit ñun les artistes. suñu ay xarit lañ suñu ay copains lañ parce que quand on dit dans la parfois dañuy dégg tey notre grand notre fierté Youssou Ndour lu mu wax lu mu wax dugal ci mbër dox na mbër cër lool lu mu wax boole ci mbër dañ koy wooye la des l'ami des lutteurs loolu dañ koy accepter mais nag dans ce cas bu ñu gisee ni stigmatisation am na ci affaire ak discrimination parce que dañ koy dañ koy dañ koy déplorer parce que bu ñu état bi am na 1000 milliards yoo xam ne tey problème mu Covid 19 bi la. 1000 milliards wala 10 000 milliards. 1000 ci 1000 milliards yooyu la sport l' ensemble du sport xam lu mu ci am 1 milliard 300. ci sport laa loo de 1000 yooyu. mille milliards yi maanaam sport sport un milliard trois cent la ci am ñu jël deux pour cent jagle ko làmb deux pour cent mooy vingt sept million vingt sept millions. vingt sept millions yi promoteurs yi ko séddale. yu engagé woon ba pare. yu engagé woon ay combat ba pare. su suñuy mag lañ suñuy ndijaay lañ suñuy xarit lañ mais loolu tamit bu ñu ko joxoon mbëri buñ ko joxoon mbëri duñ ko laal barke Cheikhou Tidiane duñ ko laal 27 millions 2 pour cent la ñu séddale promoteurs yi comparaison avec la culture ñu comp ñu parce que nag bu ñuy def bu ñuy def bu ñuy bu ñuy bu ñuy bu ñuy bu ñuy comparé suñu bopp suñu mbokk artistes yi parce que làmb dafa bokk ci culture teguñu leen bët suñu xarit lañ suñu am ji jàmm lañ fii ku fi nekk mbër bu fi nekk am nga xaritu musicien parce que lañu bokk métier bi mais nag ci ñoom lañu ci ñoom la mën a jël exemple ah. ñu jël 3 milliards bi nga xam ne bi corona bi duggee ci dëkk bi ñu jagleel leen ko 3 milliards fan yale passé ñu yëngal daay jox leen 2 milliards 500. muy 5 millions 5 milliards 500 làmb 27 millions loolu loolu mënuñu ko concevoir loolu mënuñu ko am loolu loolu tey loolu loolu ñun suñu xol yi man man damay tëdd di nelaw man sama suufu xol bi di metti non loolu dafa na loolu loolu amul ku mu loolu dafa metti parce que tey discrimination boobu warul am ci état bi li tax li nag li ñu fi dajale tey c'est juste pour message bi dem ci nga ki nga xam ne tey moo ñu bokk njaboote